ami internet univers info tv asalaamaaleykum tey nag ñu ngi fii nii ci Grand Dakar ginnaaw démb moo nekkoon premier jour euh, couvre feu bi mais gis nañ ni ñu ci bëri respecté wuñu ko tey nag dañoo wàcc fii nii fas yéene laaj population bi lan mooy seen gis-gis ci li fi xewoon démb. salaamaaleykum papa Tour bi naka la. man Lamine Ndiaye laa tudd. démb gis nañ ni premier jour couvre feu bi population bi di population bi ci Grand Dakar respecté wuñu ko woon yéen en tant que papa la moo ci seen jàngat. non moom fii lañ juddoo yoroo fi màggee fi. li fi am démb son des gens et des gosses irresponsables ñoo def loolu parce que nit ñëpp war nañ mun a nangu ne feebar bi am na ñun ñëpp war nañ mun a toog seen kër ñun ñëpp war nañ mun a sàmm mesure barrières yi ba feebar bi jóge fekk jàmm man nag en tant que euh, habi euh, habitant de cette localité je préfère service d'ordre bi jël seen pleine responsabilité redresser ñi nga xam ne toujours dañuy dañuy créer bouleversement man rafetlu naa ko rafetlu moo parce que nag dafa neexul nag quoi bëgg a tëj nit si loo ne mooy loolu quoi sama classe nga xam guddi a a ma sañoon moom ñu dindi affaire yi moom affaire yi moom neexul ci xol. yow jàppuloo ni nga jëndi ko 19 ko. mais dëgg la man na neex neex mën na guddi nit ki lim doon am guddi nga bëgg kaa xaj. tamit neexul ci xol soxna si. yow mbaa jàpp nga ni ñu ngi xaañ lool parce que ku daan jaay 21h léegi mu leer na ni couvre bi commencé na mënoo arrangé wu ba commencé di jaay 18h jëmale 20h30. mais xam am na ñoom ne Dakar ndeysaan heure bi ngay wàcc bala nga ak si fi nga jëm day guddi loolu tamit si la bokk quoi wax yow xoolal nga nga biir Dakar wala ñibbi si nii bala ngaa ñëw nga ak si 20 bala ngaa sangu bay pare pour dem 21 heures jot na pour lekk ji. waaw man daal lii sama gis-gis mooy ñun ñëpp muy Grand Dakar muy Kaolack muy Ndar muy Tambacounda muy comme feebar dañu wax ne mu ci réew mi lépp loo xam ne xalaat nañ ne lii moo ko fi war a dindi ñun ñëpp ñoo ci war a ànd pour def loolu ngir mu dañ fi ndax bu fekkee ne dañ ne takk masque yi ak teel a tëdd moom moo koy euh, moom moo koy dindi war nañ ko respecté waaye aussi nag. guddi gi yàggut bëccëg bi moo gën a yàgg bon li ñuy war a bañ ci guddi gi lañ ko war a bañ ci bëccëg bi ñu fexe ba nga xam ne teel a tëddiloo nit ñi fexe nit ñi di takk masque yi comme masque bi moo ñu ci mën a génne ñun ñëpp ñu mun cee ànd ngir yàlla mun ñu ko fee génnee man daal loolu mooy sama xalaat. jàppaloo ni tamit euh, xale yi li leen tax a révolté u lu ñu tëj waa Dakar ak Thiès dong ba yeneen région yi ñuy suufile jàppaloo ni loolu moo leen metti bañ génn di ah, ma cee lu bari parce que comme euh, dëkk bu nekk. ak euh, la fa bu fekkee ne tey jii nee nañ dëkk bi am na fa dëkk bee amu fa wala dëkk bi ni ñuy génnee moom man dama jàpp ne daal feebar bi ni ñuy fexe ba xeex ko ci génn mu génn ci Sénégal ñun ñëpp ci lañ war a mën a ànd. yàlla ñu ko yàlla génneel muy Jurbel muy Touba muy Kaolack muy Tiwaawan muy Ndakaaru muy fu mu mënti doon na feebar bi daj rek. nañ ko génne waaye nañ ko seet ni nga xam ne noonu la gën a rafete noonu la nga xam ne bu ñu ko defee mooy tax euh, feebar bi génn fi ñun ñëpp ñu ànd ci. waaw xeex ak alkaati yi lañ fi nekkee man ngoon duma ci ba maye dara ngoon pour booyale ma sànni xeer xëyuma gontuma lu nu naqari Macky Sall la ñu ko teg bu te yor Sénégal nañu dimbali ngir yàlla bàyyi ñoo Sénégal ñu xool keneen ku ñu doy ñu jox ko mag surum réew wasalaam yow jàppoo leen ni mënu mën ngeen a respecté lii nii rek ci benn fukki fan ak juróom yi nga xamante ni moom lañ joxe ngir mën a xeex mbas mi mu jugee fi non non mënuñu ko ndax joxuñu ñu lekk joxuñu ñu naan kon nuñ koy defee nit ki boo koy toogloo si këram da nga koy jox mu lekk jox ko mu naan nga mu mën a toog këram nit ki lekkul naanut nu muy toogee këram. kon yéen daal da ngeen fas yéene tey ci guddi ngeen delloo buum ca mboy mboy ga. waat buum sa booy booy ba lu mu laaj ñu jox ko ko bu jaree dee sax ñu dee waaw pour mu leer ok jërëjëf. non couvre-feu bi ginnaaw président ne 16 jours rek lay am loolu kay pour man yomb naa muñ 5 euh, heures ba 21 heures kay defe naa ne loolu kay baax na moo gënoon ñu defoon benn leneen lu gën lool quoi pour man daal moom couvre-feu bi moom dara nekku si quoi ndax feebar moo tax ñu koy def bu feebar amutoon kenn du ko def quoi. waaw waaw le premier jour couvre-feu bi xale yi li tax respecté wuñu parce que couvre-feu bi dafa metti parce que le fait que xam nga couvre-feu mën nañ wax confi mën nañ wax euh, kii respecté maski yi respecté gel yi mais tam buñ bëggee teg nii xam nga 21 heures ñu ne couvre-feu dafa metti parce que fi nit ñuy commencé liggéey fi muy neexee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ngay nit ñuy war a commencé liggéey foofu la ñuy commencé euh, euh, ne ne 21 heures daanaka day jot daanaka yow fi nga war a commencé liggéey foofu la heure wàcc bi foofu lay jot yow boo yow dootoo xamante yow lan fan nga jëm circulation bi dëkk bi xat na man daal kenn comprendre daal Macky Sall moom daal lii metti na metti na torop torop torop torop ba tax nit ki nit ñi risqué nañ na ci metti na torop daal noonu lool daal laa ci amoon ci lu ma ci wax. waaw xam nañ ni metti na lool mais yow en tant que citoyen sénégalais jàppaloo ni yow fukki fan ak juróom yi ñu la wax ni moom ngay toog sa kër bu 21h jotee ba 5h du matin ngeen ñu xeex mbas mi yow loolu mënoo ko def. mais fukki fan ak juróom yooyu ñuy wax day mel ni yow fukki weer ak juróom fukki fan ak juróom yi ñuy wax day mel ni fukki weer ak juróom dafa bari fukki fan juróom yi la wartu na defaat couvre-feu couvre-feu moo wartu na amaat fii moo tax xale yi génn si mbedd mi taal pneu yi lacrymogène jàkkaarloog police yi te lii li si mën am Macky moom mooy mooy gàddu responsabilité bi parce que mën nañ ci gaañ police yi mën nañ ci gaañ xale yi te boobaa moom mooy président bi ah, mooy chef de l' état moom moom ci ndodam lay aju. yow daal yow d' accord ci couvre feu bi. je suis d' accord moom d' accord ma ci moom couvre fa moom d' accord ma ci moom nañu wax ne na nit ñi respecté masque yi na nit ñi respecté masque yi respecté gel mais nag couvre fa moom man d' accord ma ci. waaw te ma sañoon moom loolu moom président moom mu dindi ko teg ko fële. léegi yow ban message ngay jox gars yi nga xamante ne ñoom ñooy manifester wu. gars yi manifester daal ñu dimbali ñu rek. 16 jours yàggul. cinq jours yàggul mais manifeste yàq yooyu yëpp moom pour man mooy loolu ko cinq jours daal pour man yàggul nan muñ def li ñuy bàyyi li ñuy tere affaire yooyu xam na affaire bi léegi mu jeex kenn ku ne dellu si li nga nekkoon ay couvre-feu yooyu yëpp moom enséwul kenn pour sañoon moom da ngay nekk sa indépendance foo bëgg a dem nga dem fa loo bëgg a def nga def ko mais nag lu mënta ñàkk faaw mu am loolu laa foofu laa ko gisee quoi. ah parents est-ce que gone yi li def seen parents yëg nañ ko. gone yi li ñu def seen yëg-yëg lay doon mais mag ñi du ñu wax ne gone yi dem leen def nangam xëy na gone yi ñoom bu ñuy def gone yi seen yëg-yëg la ñuy def rek mooy tax ñu ñu dem def ko. waaye nag ñu gën a waxtaan ak gone yi rek gën leen a xamal rek seet ni nga xam ne moom kenn ku ci nekk li nga bëgg da nga ko def li nga la nga war a def nga def ko jàmm am ci réew mi ndax jéem euh, réew mi fi ñu toll nii xale bi jàmm la bëgg ci réew mi. ñi nga xam ne ñoo nekk état ci réew mi tamit jàmm lañ bëgg ci réew mi ñëpp ñuy dox it jàmm lañ bëgg ci réew mi ñu ñaan yàlla rek yàlla nañu yàlla may jàmm ñun ñëpp man de loolu laa ci jàpp. yal may jàmm ñun ñëpp mais ni tamit parent bu ci nekk bu xooloon nax doomam tëdd na ba pare est-ce que ñi génn ci mbedd mi tey jii nii doon nañ fa nekk. waaw est-ce que doo nga jàpp ne léegi ñi fi nekk ñëpp seeni i parents ñu ngi fi ñi génn ñëpp seen i parents ñu fi non am na koo xam ne parent mi ngi fi wala bi muy génn parent yëgul na génn mais li am solo ba am solo man jàpp naa ne même buñ ne couvre-feu bi couvre-feu bi dëgg la mais nag est-ce que ni ñuy dugalante ci bëccëg bi moom ak ni ñuy dugalante ci guddi gi ñoo yem man jàpp naa ne ni ñuy dugalante ci bëccëg bi moo raw ni ñuy dugalante ci guddi gi ndax téeméer yoo jël juróom-ñaar fukk yi bu guddi jotee dañuy tëdd waaye bu bët setee junni boo dem junni boo jàpp juróom-ñeenti téeméeri nit ñëpp ak juróom-ñeent ñu ngi circulé bon li ñuy def ci guddi gi ñu gën koo def ci bëccëg bi moo ko gën waaw. kon est-ce que couvre-feu am na fi yoon ginnaaw nit ñi seen activité yëpp ci bëccëg gi la bëccëg gi la ñuy saafonteeg lépp kon guddi gi est-ce que bu ñu defee couvre-feu aussi liñ bëgg dinañ ko am. non kooku moom état moo xam lan moo def lan moo tax mu def couvre-feu mu def ko ci guddi gi dañu xamul nag lan mooy sabab ba mu def ko ci guddi gi mais man daal li ma leer ba leer ma ne bëccëg bi ni ñuy gën a saafontee bëccëg bi lañ ko gën a def xaw ma nag lan moo tax ñu def ko ci guddi gi mais daal li ñuy saafonte moom bëccëg bi la gën a bëri bëccëg bi moom la ëpp lu ñuy saafonte guddi gi moom xëj na te li comme ni ma la ko waxee rek téeméer boo gis fukki nit ñi wala fukki nit ñi ak juróom ñooy génn waaye juróom ñett fukki nit ñi yëpp ak juróom dañuy dem tëddi xaw ma nag dañoo xam ne xëj na boog feebar bi guddi lay ñëw wala feebar bi la xam ne ci lañ ko mën a kare waaye ñun daal wax dëgg yàlla xamuñu ci lu bari waaye daal ki nga xam ne moom moo xam feebar bi nan lay ñëw ak nan lay waxee moom la mu wax mun nañ koo jëf waaye ñoom it ñuy wax it nañu seetluwaat li ñuy wax ak niñ koy defee ba nga xam ne ñun ñëpp danañ am jàmm bu fekkee ne feebar bi dong la ñuy dàq nañ seet ne bu dee bëccëg bi moo ëpp lu muy digg ñu seet ñu ko dàqee ci bëccëg bi waaye guddi gi comme ni ma la waxee rek téeméer boo jël fukk ak juróom ñi ñooy génn juróom-ñeent fukk yëpp juróom-ñett fukk yeeg juróom ñëpp dañuy tëdd. waaw day aménagement calendrier xanaa mënul nekk ko xamante ni da daan wàcc 19h mu jéem a wàcc 18h wala 17h. mais xam nga tamit xam nga li ngay dem di jaay da ngaa dem jaay rek xamoo moo xam li ngay jaay dana jar wala du jar da dem rek tànn essence carte xaalis la soo demee doxul da ngay patienté waale ak circulation bu métti bi tamit loo changé horaire changé horaire day métti ci benn côté nañu baax ñu nekk jàmm. comme yeneen dëkk yi rek. yow daal su ma comprendre couvre-feu bi d'accord oo ci. d'accord ma ci moom moom d'accord ma ci léegi yow lu tee nga d'accord ci loo xamante ne bi yàggul douze jours kese la. ah douze jours douze jours man xam lu ma jaaxal. ba xam feebar bu gudd lay dox wala du dox guddi ma looloo ma jaaxal. looloo ma jaaxal xam nga feebar dox guddi guddi ak bëccëg yëpp mu ngi circulé kon balaa caag ñu may ñu guddi gi ñu xool mesure barrière yi ñuy doxalee mais xam nga rek feebar mënut a jug wala feebar bi 21 heures lay génn ba 6 heures du matin. ok sëñ bi jërëjëf ndax feebar bi guddi lay dox wala guddi à vous de juger jaajëf léegi yow yaakaaroon ni xale yi ñoom seen avenir la ñu soucié wu moo tax ñi nga xamante ne bi guddi bi lañ daan liggéey ji bu ko fa amee duñ mën a liggéeyu guddi jàppoon ni loolu moo tax ñu manifesté wu non non sont sont pas des gens responsables ñi nga xam ne dañoo yor jabar yor doom di liggéey ñooy def loolu ay xale yu taxawaalu lañ ba suba teel bu ñu yeewu ñu jox leen ndékki jox leen añ jox leen reer ñoom ñooy manifesté wu mais un responsable bu yor famille bu gulu bu liggéey bu wàcc dafay dem tudd këram mais loo munti gis si àdduna dafa am des euh, ay mesures d'accompagnement bu ñu bu ñu couvre-feu à 9h mais képp guddi tu as euh, nga sa carte professionnelle te am na ay mesures d'accompagnement yoo xam ne war nga mun a dem liggéey seen liggéey nañ lépp mais ñu léegi yow ban euh, ban lan ngay proposé seen parents yi. li ñuy proposé seen parents yi mooy ñu yar seen doom yi téye seen doom yi bu ñu bañee ne service euh, dëkk bi am na yoon na yoon génn digaale koog ñoom duma leen. d'accord jërëjëf.